salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV ñu ñëw ak yéen ci journal de l'arène euh, Babacar maa ngi lay ziar. Abdou maa ngi lay fay Abdou Saliou nga Babacar tey da ngaa da ngaa yaaji. <laughs> non fii de Rimka Koutira dem ci Rimka du ñu bàyyi. non dinaa la fa yóbbu. kon mbokki téléspectateurs yi ñëw yéen ci li nga xamante ni moo di revue bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 12 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëgle kaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey fa mu xëy génn fenn la maanaam géejawaay daal la dem tey andil ñu VIP ya nga xam ne ñoo fa nekk ci làmb moo xam Balla Gaye numéro 2 la ka nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 guy gi ba ci Abdou Diouf yëglekaay bi nag moom la mu jàpp maanaam ne na ñeenti VIP yi nga xam ne daal Guédiawaye la ñuy yeewu soo bëggee dëgg dëgg moom saison bi ñu jëm saison bu nar a tàng jër jër lay doon saison de feu daal la yëglekaay bi jàpp ne moom la ñu jëm ndax bu dee guy gi la ku ne xam na ne mission ba koy xaar du yomb mooy lan jéem a feree ne ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg moom loola moo koy xaar bu dee Abdou Diouf itam beneen mission moo koy xaar ba tey ci beneen beneen xale muy ka nga xam ne moo di Gris 2 di rakki Gris Bordeaux ma nga xam ne Abdou Diouf daanoon na ko moom la war a jàmmaar lool keneen koo xam ne tamit mission dëgg moo koy xaar muy ñetteelu combat muy Lac de Guerre numéro 2 ci digganteem ak Eumeu Sène boobu tamit nekk mission commando boo xam ne bu naram méttee métti lay doon ndax nag Eumeu da koo daanoon ñu mat si nil ñu jëm ci seen ñetteelu combat mu nekk lu nara metti keneen koo xam ne tamit ka ko daanoon lay jàmmaar lool muy Balla Gaye numéro 2 moom digganteem ak Bombardier ma ko daanoon ci atum 2014 mel ni ki moom itam moom la fas yéene jàmmaar tax daal yëglikaay bi jàpp na day soo bëggee dégg-dëgg ñeenti mbër mbëri géejawaay yii wala ñeenti VIP géejawaay yii moom loo ci mën a dégg moom fa ñu jëm nan naa métti lool lool lool yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dina ko wax am na koo xam ne nag moom du mbër wala boog bu dee mbëri tam xanaa la mbër la doon ca micro mu yor muy Pape mbay di ab communicateur traditionnel nekk fa nga xam ne moo di ca géejawaay dëkk ak mbër yooyu moom nag la mu xëy di xam ne daal nee daal soo bëggee dégg-dëgg moom ci wàllum leader ci lamb moom jàpp na ne ci géejawaay Balla Gaye numéro 2 la nit di ko jaawale wala nga ciy am xel ñaar ne na loolu moom moom la yàlla dogal moom moo xëy tey gisanu mel ne ki noonu saa kajoor numéro 2 tamit jàpp na ne su continuer woon carrière am maanaam bëre ne na tey niveau bi Balla gay toll man na faa toll père Pape Mbaye moo xëy tey ngar daajo sunu lamb seq fa waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu ak ka nga xam ne ni moom moo di Ibou Bari yemu ca tamit ñëw na ci ka nga xam ne ni moom moo di wàllu micro central ma jàpp na ne ginnaaw ba alaaji Abdoulaye Nar Samb génne àddina ak ka nga xam ne ni moom moo di Pape Ngom itam daal dëkkoon ca Caaroy nee na ca la ki nga xam ne moo di Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ak Ipo Ngaari commencé jël micro central ba waaye jàpp na ne ñaar ñooñu tëgg moom lañ daan def jàpp ñëw na tamit ci diggante guy gi ak saa kajoor jàpp na ne ki nga xam ne moo di guy gi moom duggam ci làmb saa kajoor numéro 2 la moom la mas di àndal fa mu daan dem moo ko daan taxawu wàllum cummikaayam ak léppam moo ko daan taxawu bu masaana bëree ba daan moom saa kajoor nee na guy gi Touré ay fan wala sax ay weer père mbay ba tey moo xëy cëw di wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag ka leen formé muy Mor Fadam itam jàpp na ne moom Mor Fadam moomu day ne nit ku baaxewoon ni moom maanaam loyal maanaam respecté doomu aadama itam dal teey ne na ku mel ni moom gëj na koo gis tey nitam dooti jafe mu gis ko bokk na ci loo xam tamit marqué na ko ci moom daal ne newoon na nit koo xam ne daal la koo xam ne daal ku gëmoon lam daan def la waaye itam ku joxoon nit ñi cër mel ni ki tey daal xëy na tey ñëw ci moom di fa jëf ay seede yoo xam ne ni yu ama am solo la beneen combat boo xam ne wax na ca moom per Pambay ba tey mooy revanche bi waroon a am wala troisième combat waroon a am ci diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye jàpp na ne xëy na mbirum kase yu mel nekk doona waaye jàpp na ne mu yàgg-yàgg xalaat na ne bés dina ñëw ñoom ñaar ñetteelu combat booba ñu bëree ko père Pape Mbaye daal tey lu yaatoo yaatu wax na ko tey fa nga xam ne moo di ca sunu lamb ka nga xam ne nii moo di Eumeu Sène ma nga xam ne nag moo war a bëri troisième combat ba ak Balla Gaye wala boog ñu koy xalaat yëglikaay bi ñëw na ci moom ak 42 ans yoo xam ne am na ko mu loo daan ko humilier ko sunu lamb ko wax de dóor ko mu daanoo du samay wax ñu ne déet na waay mu ñëw nag duggati ci benn revanche boo xam ne nii yëglikaay bi ne diggante mag Lac de Guiers numéro revanche la boo xam ne nii daal bu naram méttee métti lay doon moo tax na moomu daal di cay taxaw beneen plan boo xam ne Eumeu Sène ci moom la yaroo wala ci digganteem muy Valdo yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ak li mu jàpp ne day xale la boo xam ne ay mbiram wala boog mu ngi marqué daal xelu nit ñi ci ni muy doxale ci làmb ji ndax boo xoolee ci onze ans yi nga xam ne def na ko ci làmb ji daal moom Valdo amewu fa lenn lu dul benn defet li des yépp ay ndam la maanaam dix victoire daal dajale na ko ak benn defet boo xam ne ka ko ko daan du kenn ku dul garga numéro deux bu parcelle yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki xëy na tey di wax muy Aziz Ba di président des managers nekk ca fa nga xam ne moo di Mbour jàpp na ne daal fi mu nekk nii moom pour sauver lamb ji moom gis na ne huis clos daal xanaa kon nekkul loo xam ne nii luy mën a ñàkk la moom moo xëy tey gise nu mel ni ki noonu moom Aziz Ba ba tey bu nu continuer am na ay mbër yoo xam ne nii moom ñu ngay dund ci États-Unis beneen dund Pape Mor booy Bawal wan nañ ñu leen ca tuus ya ñu nga taxaw koñaa tamit ak soxnaam ak doomam itam ñu nga leen wane ñu taxaw mel ni ki ñooñu fi mu nekk nii réewum États-Unis nañ fa sap ba ñu ngi fay dund mel ni ki tey ba tey yëglikaay bi ñëw ne dina xam ne daal ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue moom toujours daal day décider daal di sauver la nga xam ne nii moom moo di lamb ji keneen koo xam ne nii moom bu nu demee fan koy fekki moom moo di ca Equivox muy mbay guy gi mbay guy gi nag moom booy ñang la fa attaqué ne na diggante mag tafaatin daal wax ji wax ji mbay guy gi ne na li am ba des daal jëlu ko ngir daan tafaatin ci bëre wala doole waaye ne na ci gàllaaj kese la ko wéer du samay wax nag mbay guy gee ko waxal boppam buñ fa jógee dem record record moom lan fay fekk mooy Ama Balde mi nga xam ne ni daal wala boog diggantee mag ka nga xam ne moo di Modou Lo mu mel ni Zil Balde nag joxe na rendez-vous ne na bu soobee yàlla daal léegi heure xëy wax nu ko moom record waaye école de lutte Double Less moom soo bëggee dégg dëgg na nuy doxee record ñëw na te waaye taxu koo baax de ci juróomi at yi 27 victoire 38 défaite ci 5 saisons mel ni ki daal Sa Thiès ak jiite moom seenu dox nekku dox goo xam ne ni daal gu leer naññ naññ la écrit ba daal moom na muy doxe dese naa leen bu nu jógee école Double Less moom dañuy dem fa nga xam ne nii nag moom moo di ca fa nga xam ne mooy Kaolack mel ni ki nag moom seen mandat ma nga xam ne moom mooy ña yor CRC ba lamb Kaolack daal bu le 7 octobre 2022 daal ca la mbir ya nag fas yéene dal di jeex tàkk tàkk tàkk waaw Babacar euh, ginnaaw bi ñu la bi ñu ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare ñu Babacar ñu feddaliwaat suñu kóolóore ak yow euh, Babacar ñu gis ne suñu làmb dafa ñëw ak ñëw dafa ñëw ak ñun ci ñi nga xamante ni moo di euh, quatre grands yi nga xamante ni ñoo nekk fee ci diwaanu Géejawaay ñu ni ñi ngi jëm ci saison bi nga xamante ni saison bu nar a tàng lay doon ci ñoom waaw sunu làmb xëy tey def loolu si xëtam bu njëkk waaw loolu moom defe naa ne lu am la parce que mhm. defe naa ne boo xoolee guy gi mhm. ñu ne la ban combat jëm digganteem ak rëg-rëg boo xam ne ku ko ne eh, yaakaar na kenn doo ko laaj ndax diggante guy gi rëg-rëg lu yomb ci guy gi mu ne la déedéet mhm. parce kon defe naa loolu combat de fële mhm. parce li tax mooy rëg-rëg yàlla dogal na ba mu duggee ci li affaire frappe bu mu def ak mhm. galani galani kon defe naa tey ku mel boo ko amee ah, wax dëgg yàlla am nga adversaire a taay guy gi mhm. kon defe naa kooku itam adversaire am du bu ndaw mhm. boo ci jógee ñëw ci Abdou Diouf mhm. moom itam bi muy mujj bëri ak Gris ca Diourbel ak safra ak Forza Forza da ko daanoon tey mu jóge waat fa jëlaat beneen xale boo xam ne rakku Forza la di Gris nekk écurie di rakku Gris boobu boo xam ne Abdou Diouf daanoon na ko moom tamit kon defe naa foofu tamit te Gris moom mu jógee ci defet rëg-rëg mujjee ko daan ñoom ñaari mbër a ki mu niilal mu ñëwaat mu daan ko muy Eumeu Sène moom la war a bëreel troisième combat. Mhm. te defe naa foofu tamit ku ne gis na déjà combat bi ba ko Gaston Mbengue taxawalee. Mhm. fi face à face yi ñu jot a def. Mhm. ak sànnente bi ñu sànnente ay xeer ci Equivox. muy Lac ak Eumeu Sène. yi ci jot a am moo lay wan ne kon combat de fële combat bu nar a metti la. ndax Lac de Guiers numéro 2 fi mu nekk nii gisul dara lu dul fayee ko. te Eumeu Sène itam li mu jógee dafa metti ndax ku ne gis na daan bi ko mudloo daan. yaa ngi dégg par kaw defe naa loolu la bëggee fas kon tamit lak itam si combat daf fële jëm Abdou mhm. mhm. xam ne mhm. ñaari victoire ci Gris ci Modou Lô moom itam mu jëm ci combat boo xam ne man ta yomb ndax Bombardier amul kuñ la ne yaa ngi lekk avance am ngay bëre moom ñu la combat bu yomb ngay bëre non non parce que Bombardier moo mel noonu du ragal. di nga entraîné di nga lekk di nga di nga di nga di nga di nga dem seeti say mbokk. Babacar kon Babacar. <laughs> kon moo lay wan ne kon loolu sunu làmb jàng tey juumu la ak saison de fële. ah kon waa géej waaye bu yeboon nañ préparé parce que quatre grands ñoo war a bëri te combat yu métti la war a doon Babacar. du mën a ñàkk faaw mu métti. waaye ki nga xamante ni moo di Pambay communicateur traditionnel nee na géej waay benn leader dafa nekk muy doomi Double Less ji. père Pape Mbaye ñu koy nuyu di ko ziar di suñu père di suñu lépp moom ñu xam ko muy mag mu baax mhm. waa tey xëy na waxtaan lu yaatoo yaatu ci suñu làmb mhm. ah li ñu gis ci kaw nag que ni benn leader moo ne Géejawaay mhm. di Balla Gaye loo xam ne soo ko waxee nit ki foog mu am boo xoolee Balla Gaye fi mu yegsi ci niveau kase nekk roi des arènes Géejawaay amagul mbër bu nekk roi des arènes dëgg la kon Balla Gaye de boo jëlee roi des arènes googu kese ak niveau ci wàllum kase yooyu mhm. mën na nekk leader loolu dañ koy nangu ci aspect sportif mhm. yaa ngi dégg mhm. loolu nag defe naa suy wax pour man dama jàpp ne foofu lay waxe parce que lu man tey bu buñ ko xoolee ci côté niveau bi muy bëree boobu la la dëggee di bëree ndax ñoo bokk ay adversaire yaa ngi dégg euh, guy gi soriwu fa ndax euh, presque yegg si na foofu yaa ngi dégg du Diouf itam seen mag la ba tey mu ngi ci zone yooyu mais Balla nag dafa bokk mook lag ñoo bokk niveau bi ñuy bëree mais xëy na fa mu rawee mooy moom dafa dégg roi la yaa ngi dégg. am façon bu muy bëree ba tax na per mën a wax loolu

ñuy wax rek même mooy tuuru na ndax ci làmb tey doon nañ ko xaar ni fa bu ëpp bii mu nekk mais nag yàlla euh, jaam ak pexem yàlla ak ay dogalam vraiment daal nekk na koo xam ne nekk na koo xam ne ci làmb talent mën a bëre doon mbër macha allah lu mu maîtriser woon la mais nag malheureusement la ñuy wax mais nag terewul côté ba nga xam ne fa la ko yàlla féetale tey mu nangu ko yàlla na ko yàlla wan lu ëpp njortam lu mu xalaatoon ci carrière u làmb mu gis ko fati dund ko parce que ko la man nekk na ba à l'étranger ñu waxtaan fi waxtaan wu am am solo mhm. waaye Babacar ki nga xamante ni moo di euh, borom dof du wër day tane kooku nga xamante ni moo di leader du tay si nga mhm. nee na ñeen fukki at ak ñaar la am kooku nga xamante ni moo di Eumeu Sène waaye Modou Lo daf ko fee humilier humilier bu metti mu war a jël revanche diggante gi nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 est-ce dina yomb ci moom waaw du yomb parce que combat bi mu jógee ku ne xam na ne combat du ko gën a metti mhm. ndax dóor nga daanu humiliation la mhm. yaa ngi dégg mhm. te surtout façon ba mu amee te dañ doon xaar kera bëri ndax daam fu ñu jaaroon Modou daan ko mais malheureusement kera ci naxante ci taxawaay ci loxo yu jóg ci la naxante ba Moodu dóor ko mhm. dafay am foo xam ne Abdou bu la fa coup dalee dootoo bokk dootoo bokk dëgg perte mhm. connaissance mhm. loolu moo am kere mu ñàkk combat ba mu jëmaat ci combat boo xam ne moom mooy joxe revanche ah. parce que moom moo daanoon Lac de Guiers mu doon ak moom kon defe naa moom itam ci lu méttee métti li jëm moom Eumeu Sène ak 42 ans mais nag euh, dama naan nit ki

mënta mënta yomb mënta yomb parce que Lac de Guiers mii tamit gis nga fi mujjeeg Boy Niang moo gagné waaye xëy na fa na mu ko bëggoon ci géew ba amee wu ko na par recours la ko mujj gagné te mu duggaat Pikine ak mago ñoom Boy Niang di Eumeu moo xam dafa daanoon la kon moo lay wan ne Eumeu Sène ñoom ñaar kenn jëmut ci bis bu yem Abdou soo bëggee dégg dëgg waaw euh, Babacar ñu des ak euh, ki nga xamante ni moo di Valdo Valdo doon xale boo xamante ni tarkal la ci bëre nee la mën ko yombul benn defet la am ak li nga xamante ni moo di onze victoire ci onze ans yi nga xamante ni def nañ ko. Mhm. Mhm. waaw non dix victoire. dix ak benn onze victoire ak benn défaite. voilà noonu la mhm. demee Valdo muy xale boo xam ne moom tamit defe naa ne balaa ñu koo xam ci li affaire frappe ci li simple lañ ko xamee. defe naa drapeau Vélota ba amoon ci Louga. keroog def na fa jëf joo xam ne nii ñëpp fa lañ jaare naan Valdo Valdo Valdo. mu nekk si ginnaaw Mohamed Ndao Tyson ak Eumeu Sène ba ni Eumeu dem beri écrém mhm. mu moo moom itam mu resté yaakaar naa si ginnaaw tey seen ba tey mhm. muy xale boo xam ne talent bu bëre am na ko di doomu séréer macha allah moo tax daal lii mu def nii moom ah jara ku jara bàyyi xel la mhm. benn defet bi mu am sax kera defe naa ne defet ba ba mu daanu moom sax defet ba da koo bett ndax moom garga waa ñu dem foofu nga xamante moo di ci diwaanu Mbour Aziz Ba président des managers de Mbour nee na combat ñu organiser ko huis clos rek moo mën a sauver li nga xamante moo di la lutte sénégalaise waaw fi mu nekk nii moom fa lañ toll parce mhm. que lu ko amul yaay nàmp maam mhm. parce que tamit amuñu nu ñu mhm. il faut que ñu jéem a bëre comme nañ ko garçon bi décidé décider ñeneen décider ko mhm. ñu a def le tour rek pour que def à huis clos bëri après mbëri mën a dem ñu mën a utiwaat leneen mhm. et na tax ñu dundaat benn expérience ah mhm. waaw waaye Jules Balde doon mag ci ki yooyu gisuñu ko fa président école yeeg Falaye Balde gisuñu ko xëy jàpp ne xëy na lii la tekkere daal ci loxo journaliste yi léegi ñu gis Ama xëy na nag ñoom euh, li ma la rek wolof ne na ku wal nduru tuddub dëkk Babacar Sall bu ndaw daa bëri affaire daa dafa bëri affaire ah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm combat bu nar neex nga gis Babacar ndax xam naa ni ñaari mbër yu bëri affaire yi bëri ñu ñaari mbër yu doy waar Abdou waa ñu des ci li nga xamante ni moo di wàllu bëre ba tey ki nga xamante ni moo di école de lutte Euh, ba ba école de lutte Double Less nee nañ am nañ vingt vingt sept victoire maanaam ñaar fukk ak juróom-ñaari victoire et 38 défaites muy fanweer ak juróom-ñetti défaites yoo xamante ni en en en cinq ans ci saison bi. juróomi at yi passé. waaw muy loo xam ne moom du résultat bu. bu baax waaw. parce que 27 victoire 38 défaites vraiment bëri boo xoolee kon da nga naan dañoo wàcc bu baax a baax ah loolu nag li ko indi xëy na travail bu kii la wala boog nu mu mm-hmm. demee loo ci mën a dégg daal mm-hmm. ñoom ña nga xam ne ñoom ay père bara ak ñoom ñoo yore école ba mm-hmm. ak ñoom Sa Thiès bi nga xam moom mooy leader bi ah war nañu gën a oo waat xool lan mooy seen problème parce que lii moom nekk résultat boo xam ne Abdou bu bu kii la quoi moo taxit noonu lañ ko tiitiré de Double Less et sangonis man de Babacar sangonis dama ay tubaab la de waaw <laughs> kon dama ko jéem a tekkil ah, xam naa loo ci mën du lu normalul moom parce que bu normaloon xam naa ni duñ duñ ko duñ ko bind waaw bu baaxoon kay dinañ ko bind leneen sangonis non waaw xam nga on fait la liaison ok waaw saa ci sangonis waaw ok du ko laisser saa ci sangonis sangonis kon yéen ñi waaw kon mbokku téléspectateurs yi loolu lañ leen di loon ci li nga xamante ni moo di revue de l'arène ñu ànd kook euh, kook nga xamante ni moo di Babacar di nuyu nag sama jigéen kook nga la nga xamante ni moo di a ñàkk nuyu mm-hmm. jigéen mm-hmm. di mbokkam di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom mm-hmm. xam moom tam suñu rakkal suñu jigéen la di koy ñaanal jàmm di ko ñaanal yàlla tam yàlla na ko yàlla may borom kër bu baax waaw mhm. di nuyu képp koo xam ne daal mhm. yaa ngi ñuy suivre mais di nuyu Rim Kaakutir sama téere bu borom Touba Sandaga mhm. di ko ñaanal jàmm di nuyu groupe Equivox yëpp yëpp yëpp rawatina borom kër gi di ko wax ne ko rek effort yi muy def ngir Equivox dox yàlla na ko yàlla dimbali ba loolu réussir ko ba gis ci loolu kawe njortam parce que tamit jafe na nga nekk jeune nekk sénégalais mënoon a def leneen ci sa alal nga jël organiser maanaam taxawal presse dëgg la jël ay jeunes di leen fay defe naa kon yow ñu mel noonu président Macky Sall war na leen a gën a bàyyi xel gën leen a may doole parce que ñoom ñu ngi xeex chômage bi indirectement mhm. kon boroom kër gi nga xam ne moom moo bëggul na kutul turam mhm. mais man saa su ne maa ngi lay ñaanal yokkute ba yëg ko mhm. di la ñaanal jàmm di ñaanal groupe bi yëpp badu tamit mi nga xam ne moom mooy directeur Vox Arena bi nga xam ne mooy label bi tëgg làmb ji moom tamit maa ngi koy nuyu waa borom connexion yi moom kenn du moom ci man saa yu ma soxlaa connexion rek. mu dugal ga gàcce galaamaa ñoom. waaw waaye Gambie ga Babacar ko ma fa dëgg ne ma. incha allah ah, ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> ko xamul de mhm. a bëre lool macha allah. Mhm. lu ne mu def ko fi defe naa ne moom ci porte la génne waaw kooku nga xamante ne ay xale la a dem yoon. waaw dëgg la ndax bëri na ndeysaan mu nekk mag joo xamante ni man mënu maa wax ci moom parce que xol bu rafetam ci ñun uh-huh. ak yéene bi nga xamante am nañ ci ñun uh-huh. bi muy bàyyi làmb jox ñu woo ku ci nekk ci ñun wooñu ah ne kat rakk lii laa bëgg def tamit Babacar di la ñaanal jàmm ci barke Serigne Saliou Mbacke mi nga xamante moom laa yaakaar lépp lu di di def ci làmb uh-huh. yàlla ngay def lu ko raw ci barke Serigne Saliou Mbacke ak ah, kon Gomis tëjal <laughs>